barke cheikhul khadim te am nga ma de dama non duma ci wax mukk bi may joge ci emission bobu dey su fekke limay wax amul comme yomal khiyam yal na dem aljana man ma dem safar ma ko grand day bugguma la togn la ma ca tegal mo man dama am faiblesse bobu munu mala wax ni demal soyn yaay set ba mu arranger la wala nga set ba arranger tu la nga dem ndey bo de gor ndey dama am ndey dama am baay am jabar ami doom te sama doom yooyu ñaan naa yàlla ëllëg seen baay am way wu rafet kon man xeeb ma kenn soxorew ma kenn musuma tooñ nit te ku ma mës a tooñ nee naa la baal ma àq. c'est que mu ngi expliqué diggante ma Kouthia ba rangoñam dal dënnam donc li muy wax c'est fort comme niñ koy faral di waxee rek nit moom Mm, li nekk si yow rek ngay génne.